ñu ngi fas yéene waxtaane ci saar bi ñuy wax saaru faatixatul kitaab maye ci ay njariñ waaye tamit waxtaan ci cat lan mooy cat waaye tamit waxtaan ci jàngoro yi der lépp lu jëm ci wàllu der ak wàllu picc ak wàllu taas te buñ ko waxee rek xel dem ci ndoxum siti waaye chaque émission dañuy bëgg a wax ci actualité liñ gis yoo gis na jamono ji am na ndaw su doy waar soo xam ne si mi ngi indi ay gàllankoor ci réew mi ñu koy woowee rangu rangu moomu nag ñu bëgg koo xamal ne yooyu muy def na ko bàyyi ndax alali àdduna jarul yenn yi tey Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ne si dafa am ñu fi nekk ñoo xam ne si dañoo yor kurus bu dee ndaw nga def yenn yi nga xam ne si neexul kilifa yi seen ruq lañuy toog jël ab dog bind xaatim tagg li ñuy dagg werd li ñuy werd nga xëy rek accident wala nga dee deegu ñaaw dafa bëri dafa bëri ñu nekk ci dëkk bi ñoo xam ne noonu lañ mel ay kilifa lañ ñi nga am seen xam-xam mbooleem ku débordé wala nga indi problème duñ wax dara dañuy toog fan dagg xaatim def la ñuy def sa àdduna yàqu kon kooku di rangu yooyu mi def bu ko mënee na ko bàyyi amul sens ndax alal àdduna jëru ko àdduna àdduna dafay jeex milliardaires yi ñu fi dégg yëpp te nekk fi lu jiitu ñoom amoon na yeneen yeneen boroomu daraja te kenn déggatu leen ana Balxiis ana ana Seydina Yusufa ana Suleymaan Seydina Suleymaan mi nga xam ne si ab yonent la woon nga xam ne dafa demoon ba yilif jinne yi yilif rawxaan yi yilif picc yi nga xam ne Suleymaan bu daan def bu daan toog di waxtaan picc yi ñooy booloo rab rabbalante seeni laaf mooy nekk mbaalum Suleymaan Suleymaan rek mooy nekkoon yonent yonent bi daan yónni am picc yonent yàlla Suleymaan bu daan yónni yónnee dara leetar dafa am picc mu ñuy wax hut hut hut hut mooy picc mu ñuy wax Moussa Njuburi moom mooy picc mi am jubbu bi moom yonent Yàlla Suleymaan dafa amoon maqaama ba picc moomu da ko daan yónni jox ko ab leetar picc mi képp ko naaw dem ca kam ko yónni jox leetar bi. bu fekkee loolu taxu jug mu xool yeneen projet yu mu xalaat jëm ci liggéey daal parce que Sénégal loolu loolu rek moo ñu mën a jàllale nañ bàyyi bëgg am buzz ak bëgg nit ñu gis la. tax ngay def yenn yen yenn yi jëru ko nañ indi projet indi waat xalaat nit bu la yàlla bindee jox la xel da nga xel moom da koy utiliser mu jural la njariñ waaye doo am xel ba noppi di def yu kër xamul yoo xam ne amul sens dund gi gàtt na déggi gi gaaw na bëkki dem rek sama benn xarit bu ñuy wax Modou Ndiaye malaise ko rey dafa jug añ ba noppi taxaw jug taxaw rek daanu. la ñuy woo hôpital euh, sapeur fekk na gaañu na day gaaw yooyu bu fekkee amna na ci dëkk bi kon nit ku looy def war nga koo bàyyi xel war nga cee teey te nañ tey ci àdduna te bañ a topp àllu àdduna ndax këyit yi moom lu mu bëri si fi nga koy bàyyi te xaalis aw këyit la rek la waaj waxoon xaalis këyit yu mu peinture képp la ko defee kon loolu loolu dañu wax ci actualité rek lu ko may ñu dugg ci biir émission bi waxtaan ci jàngoro yi der muy ndoxum siti nekk na feebar boo xam ne si ci deret lay nekk waaye tamit feebar bu fi yàgg la wax nañ ne tubaab am na ko naar am na ko séeréer joola njaago soose ñëpp ko am dañuy wax ne sax ku amul ndoxam siti da am gaana loolu ñëpp wax waaye ku nekk ak ni muy manifesté sa yaram ku nekk ak ni mu lay def ndax ndoxum siti mën na indi ay picc ci yaram picc yooyu dafay xasan bu xasanee nga laal ko mu toj bu tojee ndox moomu fu mu laal lay def benn picc bu yàggee dafay indi bu yàggee dafay indi taas bu yàggee mën na dem ba indi didim li ñuy wax didim da ngay gis koo xam ne kii fu mu toll yaram yi day weex tàll même même bu duwoo du tee yaram weex kooku ndoxam si koy def kon nañu xam ne mbooleem yi der lu jëm ci wàllu taas wàllu picc nday ja mooy ndoxum siti na ko ñëpp bàyyi xel moom ndoxum siti it mën na jàpp góor sonal ko indil ko ay jafe-jafe ci côté ngóoraam maanaam góor goo xam si mën na jàpp ne dañ ko takk xala mu takk soxna du ca man dala jàpp ne xala la fekk ndoxam sit la mën na delloo sakkara góor ni ma ko mën a waxee góor goo xam ne si sakkaram day per wala du yàgg ci kawlal bi wala ci misaal ndoxum mën yoom ni mu mën a mel ni mu war a fooree ba doom mën amu du mën am su boobaa la nga jàpp ne cat la wala liggéey la ñu nga ñaan la dañ la dañ laa liggéey wala dañ laa kii fekk ndoom si ndoom si képp la waaye loolu lépp nag dafay laaj xool seet ko ndax yàlla boo waxee ci alxuraan ne maa faratnaa fil kitaab min shay'in téere bi di alxuraan karim bàyyiwul dara loolu mooy tegtal ne kon alxuraan ndekete nekkul ne dañ koy jàng rek daal dem lépp dañ ko war a xool saytu ko ndax adduna bi lépp dafay tegu ci xam-xam boo xoolee juróom-ñaari bis képp moo am ci adduna bi olof mooy wax dibéer altine talaata àllarba alxamis ajjuma tubaab muy wax dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi. arab mooy wax yowmul ahad yowmul isnayni yowmul salasaayi yowmul arbaayi yowmul xamisi yowmul jumaati yowmul sabti mu juróom-ñaari bis juróom-ñaari bis moo ànd ak juróom-ñaari tur yi ànd ak juróom-ñaari bis yi faradu jabbaaru shakuru sawaabu sahiru xabiru zakiyu maa ngi di ko tënk ci faje sa sa saxasa moo ànd ak juróom-ñaari rawxaan yi ànd ak juróom-ñaari bis muy rawx yaa ilu jabr yaa ilu sams yaa ilu mika yaa ilu sarf yaa ilu xat moo ànd ak juróom-ñaari yi ànd ak bisi muy jinna masahab jinna muratu jinna ahmar jinna barxaan jinna samaros jinna abyadu ak jinna maymuna moo ànd juróom-ñaari tabia wala nga ne juróom-ñaari wala nga ne juróom-ñaari mooy wax biddiw tubaab mooy wax étoile arab wax tabia muy shamsun xamarun mariqun otaaridun mustari suhratu ak suhal juróom-ñaari yooyu muy ànd ak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 ñaareel ayib mooy badi'u samaawaati wal ardi wa izaa qadaa amran fa innamaa yaquulu lahu kun fayakun ñetteelu ayib mooy jaa'ilil malaa'ikata rusulan ulii ajnihatin masnaa wa sulaasa wa rubaa'a yaziidu fil xalqi maa yashaa'u inna llaaha alaa kulli shay'in qadiirun ñeenteelu ayib bi mooy da'waahum fiihaa subhaanaka allaahumma wa tahiyyatuhum fiihaa salaamun wa aaxiru da'waahum anil hamdulillaahi rabbil aalamiin juróomeel ayib mooy huwal awwalu wal aaxiru was zaahiru wal baatinu wa huwa bi kulli shay'in aliimun juróomeel ayib mooy wallaahu min waraa'ihim muhiitun bal huwa qur'aanun majiidun fii lawhin mahfusun juróom-ñaareel aay bi mooy suyina lin naasi xubbu sahawaati min annisaai wal banina wal xanaatiri muxantarati min assahabi wal fiddati wal xaylil musoomati wal anaami wal xarsi zalika mataawul xayaatu dunia wallahu xindu xusnul maab juróom-ñaar yi ci la ñuy istixaara ci la ñuy seet ci la ñuy firi gént ci la ñuy xam nan la ñuy daggee xaatim xaatim musallas xaatim murabba xaatim muxamas ci la ñuy xam nit ki tabiaam ndax safara la wala suuf wala ngelaw turaabiyu hawaa yu maa yu ak naar yu ñenn ñi nee moo nee nañ moo symbolisé penku soowu bët saalum ak bët gànnaar am na sax ñu ne mooy secret yonent yàlla Isa alayhi salaam Jésus Christ boobu li muy tegtale mooy suuf ndox safara ak ngelaw kooku daañ ci ñëwaat ci beneen anam ci beneen secret sax yonent yàlla Isa moom sax moom Jésus Christ danaa ci wax ndax am na bis man mii di ak yéen gént naa ko ba gént ba gént Mariama Seydina Mariama bi ma koy gént moom yaay Isa dama ko gis bu jekki-jekki nekk pitax daal di naaw pitax mi waxtal ci kaw loolu daal daa ci ñëwaat waaye tamit nët xamu boobu ci ngay mën a xam nit ki ndax saraxam ndox la wala safara maanaam ndax dafa am ñoo seen sarax ndox la war a nekk lépp lu laal ci ndox am ñoo xam si seen safara seen sarax dafay nekk safara mbooleem luy tàng lu mel ne ndawal wala lu mel ni jën am ñoo xam si seen sarax lépp luy sax si suuf lu mel ne xaal loolu lépp yaa ko mën a xamee ci trois bi hawa yu ak naar yu code boobu ñu ko mën a xamee waaye ànd lu ci mën a am rek képp koo xam ne kii bëgg nga ñu seetale say mbir ci téléphone wala nga am sa gént bëgg ñu firil la ko ci téléphone wala nga bëgg garab guy faj mboolem li jëm ci wàllu der wala ay picc wala ër mën nga woote ci numéro boobu di jàll ci kanam écran bi muy 78 592 64 54 78 592 64 54 wala nga woote ci benen numéro 33 bi ak benen numéro bi top bo ci woté rek inshallah allah ci kàttan ñal ak euh di nga mëna am ci garab yoyu di fajj der machallah allah kon ma maye tuti ci fatiha xam ngeen ne fatiha julli gu du bax fatiha amul julli go julli bu amul fatiha du bax lool rek garaat la wax nañ ne fatiha mom moy umul kitab moy nday alxuraan ndax bo ubbe kaamil bi fatiha ngay jëk daj tay secret bi ci nek deug deug moy sank wax na ni joom ñaari bis mo am ci aduna bi. dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi ak samedi mais Fatiha juróom-ñaari aaya la moo tax képp koo xam ne kii am nga soxla ci wàllu di lijjanti lijjanti ay kayit nga bëgg mu jafe wala nga nekk nit koo xam ne kii dafa am loo bëgg jot oto wala soxna mu jafe li ma lay digal mooy juróom-ñaari bis yi dimanche na jàpp ba sell daal di werd alhamdulilahi rabil alamin cent fois daal di ñaan dem altine nga jàpp ba sell werd arrahmani arrahim cent fois ëf ëf say loxo daal di ñaan dem talaata nga werd maliki mi diini cent fois àllarba nga werd iyaaka naabudu wa iyaaka nastainu cent fois alxames nga werd ihdina siraatal mustaqim cent fois ajjuma nga werd siraatal lazina anamta alayhim cent fois samedi nga werd gayril maxdubi alayhim wala daalin amin cent fois muy juróom-ñaari aay yi ay bu ci nekk nga werdu ko cent fois ci juróom-ñaari bis lii képp ku ko def ay joo am boo defee lii juróom-ñaari fan boo ko doxee mu sotti ñi nga xam ne si dañoo bëgg am kaaraange ci fatiha képp ku bëgg am kaaraange ci fatiha dangay ngay bind fatiha ubbi miim yi xam ngeen ne alhamdu rek miim googu nga ubbi ko lillahi rabbil alamina miim ngi nga ubbi ko miim yi nekk ci fatiha boo ko ubbee danga nga ciy bind yaa allahu yaa kaafi yaa allahu yaa kaafi nga bind ko ba muy juróom-ñaari fatiha nga def ko saafara boo saafara nga wut garab gu wax poftan juroom ñaari xobi poftan boole ko safara bi sangoo ko juroom ñaari fan kaaraange la kooku ñu koy baxé doomu aadama ñi nga xamni ci mënu ñu sangu bëgg am kaaraange it nañuy def sa buñ jullé ba nopi julli farata nañ de faatiye 11 fois dal koy euf seen loxo ndeyjoor ray seen bëgg ak seen kanam koku it kaaraange la ku bëgg am bayre ci faatiye ba tay man nga bind faatiya 70 fois juroom ñaar fukki yoon waaye ay bo bind ci da ngay bind yaa waduudu yaa waduudu vingt fois ba muy soixante dix fatiya nga def ko saafara yow mi bëgg am bayre nga boole kook garab gi ñuy wax wasosoor xob yi xob yi wasosoor juróom-ñaar fukki xob boole kook lakkoloñ bu ñuy wax kaafin kaaf boole kook suufu jàkka ak suufu marché nga sangoo ko juróom-ñaari fan dangay am bayre ci moo xam góor nga moo xam jigéen nga moo xam da ngay way moo xam jàngkat nga moo xam journaliste nga moo xam mburum làmm ga boo xam dañuy fubal li ko ko def am bayre ndax fatia mo am dara jooju mo am yokta gogo su ko defé kon mbok yi di jox dig deye eh, di jox dig deye ci benen émission jotaay xam-xam ngeen ci andas ni Mortal tawfiq fi sen sen bu mag bi di kewlo TV liñ ci fatali moy kep ko xamne ki bëgg ci ay leeral man nga woote ci 78 592 64 54 78 592 64 54. 78 592 64 54 wala nga woote ci yeneen numéro yooyu di jàll ci kanam écran bi 33 867 82 14 wala nga woote ci 78 420 13 91 78 420 13 91 boo ci wootee bu dee da ngaa bëgg firi gént dana mën nekk bu dee da bëgg ñu istixaaral dana mën nekk bu dee da bëgg garab gi faj lépp lu jëm ci wàllu der dana mën nekk su ko defee kon ñu jox leen dig daje beneen émission jotaay xam-xam fii ci seen seen bii di Kéwoulo TV jërë ngeen jëf.